mel ni nag am na ñoo xam ni ay wayjur lañu woon ci ñun daan bokk ak ñun jotaay bi te yàlla def ñu dëddu incha allah dinañ leen rendre hommage su président jógee dina leen tuddal boppam fi nga xamante ni ñoom foofu lañ la leen toll woon moom moo koy waxal boppam ah alhamdulilah jox na ma kayit gi ne naa ko tudd ki ci jiitu muy suñu yaay mère Guissé nga xam ni jàmbaar la woon saa su ne waxtu wii fii la daan nekk ak ñun nekk ci ginnaaw président Habib Niang mu doonoon mag mag moo xam ni tàyyiwul yox yoxiwul jël boppam jox ko président Habib Niang moom it ñu koy rendre ci bis bi di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana di ci tegit suñu yaay joo xam ne moom it jàmbaar la woon muy maire Ngoye maire Ngoye nag ku nekk xamoon na taxawaayam moom tamit fii la daan nekk di animé doonoon ku am jàmbaar jàmbaar te amoon pas-pas Habib Niang président Habib Niang jaraloon ko lu nekk moom it yàlla def na it wuy ci na boroomam moom it ñu ngi ñaanal ci weeru koor wi yàlla na ko yàlla jéggal ku ci mel ni tamit Mariam jàlloo ci taaxi kaw nga xamante ni moom it jàmbaar la woon ñu ngi ko ci rendre hommage ak ki nga xamante ni mooy Aminata jàlloo moom it ca taaxi kaw moom it ñu ngi leen di rendre di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yëm leen mbir mi nag taxaw rek te xam ne bakken bu mus dund di nga mus dee kon nag ñoom ñi nga xam ne jiitu nañu ñu ngi leen di ñaanal yàlla ci turu président yàlla na leen yàlla yërëm ñu nit yàlla ñu fi yàlla bàyyi yàgg fi lool yàgg bu jë président ci yii nga xamante ni ay réalisation la yoo xamante ni mu nga koy def ci Thiès waaye ànd ak njabootam yëpp ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg ko man ak wér te yàlla yokk teraanga tey lu leen ñaan bi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 monsieur les imams, monsieur les chefs religieux, monsieur les notables, chers voisins et voisines de Thiali, chers notables du mouvement, chers amis du groupement des femmes, chers jeunes du mouvement, honorables invités, monsieur, madame, Nous voilà réunis dans ce mythe quartier de Thiali pour procéder à la remise du Soukorkor gracieusement offert par notre mentor, le président Abimian. Ah oui Je dis que ce n'est pas une première. C'est devenu une coutume au niveau du mouvement. Cette témonie qui nous réunit rêve un caractère particulier en cela qu'elle traduit la volonté mastique du président Habib Niang d'assister ces vraies femmes en ce jour du mois de Ramadan. Messieurs, mesdames, permettez-moi de parler un peu de notre mentor, M. Habib Niang. Pour le nommer, a été l'origine d'une rupture sur la manière de faire la politique à Thiès. Les nombreux actes, les nombreuses actions qu'il n'a cessé de poser depuis ne sont pas un secret. Ce n'est plus un secret ici à Thiès. Monsieur le Président Abimian, de la scène politique qu'il est, est devenu incontournable. Ce faisant, il a conquis le cœur des Thiessois et Thiessoises. Nous militants et militantes du président Abimia, nous lançons un appel au président, à son excellence, le président Abimia, de rendre la récompense que le président a travaillé au niveau du Sénégal. waaye la ilaha une récompense à la hauteur de son travail qu'il a fait dans ce pays je dirais même pas à Thiès hein, au-delà même pour terminer je voudrais demander à l'assistance de se lever pour apporter un standing aux vocations pour un tonnerre d'applaudissements à ce grand monsieur. Je, vous remercie. Je vous remercie de votre aimable attention. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi le président Habib Niang di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi teew yépp di nuyu la jeunesse di nuyu les femmes di nuyu waa caali ak les journalistes may baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla bu ñu doon suñu mujjantalu koor yàlla nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla ndax suñu président ci poosam lay tibbee di ñu jox kenn joxe ko ndomb baat boo xamee ne mën na jàmmanloo ak ñeneen yi waaye yéeneem lay doxee te yéeneem googu nag ah ñun de rëcc wuñu ko ndax président Habib Niang fi njëkkee ak ñun mooy yëkkati 10 millions jox ko financement des femmes financement pour les femmes ma lay wax président nag ah femmes yee ma yóbbante dim 10 millions yooyu nga génne pour financement ah nammaat nañ ko nag xam nañ ne état joxula ko yaa defoon say lijjanti ba am 10 millions ñëw jox ko femme boobu nag ni sii nag ñu ngi xaaraat deuxième édition kon nag loolu yëppante femme la mënu ko woon ñàkk wax waaye ñu ngi xamal ne président Habib Niang ñu nag yow ba géej gi fer di leen gore ba dee ndax yow la gis démb yow lañu gis tey ndax kat jigéen defe naa ne ku ko amal njëriñ defe dara ndax président Habib Niang ñu ne yow ci suukaru koor yi ñu ne yow tabaski ñu ne yow ouverture des classes ñu ne yow ordonnance financement ñu ne yow projet kon lan lañu président Habib Niang desal gisuma ko kon nag ñu koy ñaanal lépp loo xamee ne bëgg na ko ci politique bii yàlla na ko ko yàlla yombalal ndax kat boobu ba nekk ni fii ñu ngi ci terrain bi sept années ñu nekk ci gannaawam di nekk ci terrain bi di jàppale benn nit waaye nag ba nekk ni fii lu sedd suñu xol amaguñ ko ndax bu doon suñu sago tey président Habib Niang jox ko gëddam que gëdd googu dafa des waaye nag président ma di la wax bu la dara naqari ndax ñun jigéen ñi defe naa ni ku ñu bëgg fal dinañ la fal ku ñu bëgg a folli dinañ la folli moo tax jaroon di ñuy tuutal jaroon di ñuy soofantal may wax nag sama mbokku jigéen ñi avant tout nañu dem bind ci liste électorale yi ndax bindu bi commencé na léegi mu jeex incha allah ndax bind boobu carte électeur yi mooy tax ëllëgee ku ñu bëgg fal fal la surtout nag primo-votants yi ñi nga xamee ne mosuñoo voté nañu dem inscrire ji ñi nga xamee seen carte d'identité dafa am problème nañu dem lijjanti ko ndax ñun dañoo yore suñu arme taxaw di xaar ku ñu faale ñu faale la ku ñu faalewul du la faal. kon ñu yabalee suñu xarit muy mafal di kenn suñu également nekk son chargé de protocole yabal ko à ce que mu ñëw àndil ñu invitation ñu ñëw teewi bis bi mënu woon ñàkk ñu teew ci ndaxte ñun dëgg la gaa mouvement la sagesse dañu teewal mu jiite ko ànd ceeg Mami Diana moom ñu jiite suñu structure de base yi mais lépp li nga xam ne dafa jëm ci jàppalante ci wàllu solidarité rawatina nag mu ñu nekk ci weeru koor mu daan weeru jëngal weer bi nga xam ne en tout cas yonent bi lam ci wax ku ne xam na ko mooy weeru pardon weeru solidarité weeru en tout cas jàppal ma jàpp lu waaye am di ëppale ko ak moromam mu dimbaleel ko te yàlla rek tax donc ñu gisee koo xam ne en tout cas jël na ci dooleem ci loo xam ne nguur joxu ko ko ci la mu liggéey nax ko la tibbi ak dooleem nar koo bokk ak jaamu yàlla ya nag na ca gën mooy kon kon suñu suñu invité dañuy teew teew ngir mbokk teew ngir soppi teew ngir diine mais teew ngir jëm ñu toog fii muy suñu yaay muy suñu jigéen ñi muy suñu sër kon ñu dañ ko sama togona sëg Habib Niang ku feebar nga faj Habib Niang jigéen ñi kenn la watu yaa dimbali jigéen ñëpp ñu ngi ay sama yoon fii ma taxaw maa la mag fopp am naa juróom benn fukki at waaye Habib Niang mag li ko yëkkati ñuy fopp Habib yaa dëggu Habib yaa bëgg Macky Sall lu nu wax nga ni Macky Sall rek fu nu jëm nga ni jaar leen ci Macky Sall rek waa Macky Sall ñun de ñu ngi lay ñaan ci sunu waa ji ki nga xam ne moo nu sagal ki nga xam ne moo nu jàppale Macky Sall ñu lay ñaan nga jàppale suñu waa ji président Habib Niang. Macky Sall ey lii jot jot na ginnaaw dee. Macky Sall ñun ay mag lañu danoo wóor. la ilaha illallah. fulla moonu fi andi ak fayda. xam man ñii toog doon ay mag am ay juróom benn fukki at taxawal président Habib Niang xam nga ni lu mu dëggoo kenn du ñuy dox sax du ñuy jëy li dañoo doo mu ànd mille moom. dañoo door ren nag muy septième édition bi commencé di joxe sukkaru koor si ay néeg ay bureau ba tey ñu yegg si si stade donc li ñuy def du ay caaxaan. tax na nag kii nga xam ne moom la moo ñu fi dajale tey. te ñëw bi du su du soble fii ñi fi toog ñëpp am nañ soble seen kër fii ñi fi toog ñëpp am nañ pomme na terre seen kër donc buñ fi ñëwee tey dañoo ñëw parce que nit kii moo leen ñor. maintenant ku ko soofantal nag tu vas te dresser ñun nga fi fekk parce que ñii ñii ñii caaxaan taxu leen a jóg caaxaan taxu leen ñu def des kilomètres pour ñëw toog fii donc ki leen amal njëriñ dañ koy amal njëriñ ba ñu xool fu ñu jëm. lenn nag ren affaire bi gën na yaatu. metti na diis na mu ne ma wax ko ñëpp ñi nga xam ne mooy staff bi ne buy metti sax bu may jaay samay kër jaay samay oto jaay samay bien dinaa joxewaat suukaru koor bu samay jigéen donc nit ki nga xam ne ah xaw ma ñu ko xamul xaw ma ñu ko xamul xaw ma ñu ko xamul man dama tëdd fanaanoog moom si benn lal dama koo xam jaral na ko tayle na otoom du benn du ñaar jaay na ay këram du benn du ñaar pour ñëw jox leen suukaru koor donc nag yéen jigéen ñi bu ngeen jàppee ni da ñëw parce que soble moo leen fi indi da ngeen di nax seen bopp parce que kii joxe soble bi da koy joxe ba pare di reetaan joxe neex na mais joxe di reetaan moo moo naqari donner c'est bon mais savoir la façon de donner c'est ce qui importe le président Habib Niang si la nekk ñu ngi ñaan yàlla parce que daaw am na ñu fi nekkoon ñu fi ñu ngi leen di ñaanal et di ñaan lii ñu koy def di ko def ba nga xam ne congrès national lay doon parce que kii ngeen seen muy président Habib Niang ñun ñu ko ay ministre ak yii de on est jeune on est ambitieux et derrière lui bu mu ragal dara du dara la dul ragal ñu ngi si ginnaawam lu waay laaj di caay-caay di doole di xam-xam lépp dajale na donc ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ramadan mubarak euh, salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di jiital kilifa yi fi teew kilifa diite yi kilifa diine yi bët yi fi nekk di nuyu la presse di nuyu nag sama jaamaate xam ne mooy sama jigéen ñu xam ne bu amit ñaam wootee jaral na lu nekk di bàyyi li des ci élection yi bëriwul lan moo am solo mooy les cartes moo am solo nañu fexe surtout les jeunes les primopotents dem inscrire dem ba rek maa ngi waxtaanee ak benn maire bu commune d'arrondissement bu Guédiawaay mu ne seet naa la si commission yi bureau de vote Guédiawaay man fi effectivement dama ay ndaw yu xam ne il fallait que ma accompagner leen di dem inscrire parce que élection lañ jëm élection yu am solo élection yaakaar naa bi yoon mu demee woon di leen nuyu yëpp ñu fi sant di leen baalu àq lii ñu nii ñu fi toog ñëpp am nañu soble am na mobiliser seen si wolof dara teraanga rek la yoonu ma ay poste de responsable yoo xam ne dañu war permettre ma am caisse noire pour jàppale leen mais xam a tey bu a amoon sept poste ah kenn sol loolu mais li may wax yaakaar naa ne le coordinateur des jeunes la présidente des femmes ñu nga ñu de c'est vrai que boo nekkee en politique ku si nekk ne bu nga di wax xam nga politique du wax rek xam ne na la masque ñëw yaa nekk ñëpp ay responsable yore seen xam nañu actuellement il est 14 heures passé ci suba passé la Habib Niang moo leen ko jabar ñu jox nii ñi fi nekkoon démb fi nekkaat tey balaa may tàggu sa discours yi dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñun ñoo nekkoon ak ñun daaw yàlla jëlee leen fii ndeysaan bu ñu fàttee suñu maire maire gisee ndeysaan maire Ngoy ñëpp xam nañu maire Ngoy bu muy génn àdduna bu muy sutura sax Habib ñaanal lu tudd tudd bu ko avec bi si boppam wax na ma woo na ma ne ma monsieur Habib Niang xam nga lu ma yéemu si yow yow xàmme moo julit xàmme yëfër yow même corté bu jot la ñu jox dañuy jox dañuy jox sukur koor man nit ñëpp si yàlla lañ jógee yàlla la ñuy teewlu ñu ngi nuyu ñu ngi ma si def di ñaanal Mariam Diallo bi dëkk Jaxaaw fille de mère Ami Sow ak Aminata Diallo taaxi kaw ñëpp di ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yërëm yàlla suuf seen si ñoom yaakaar naa ne yéen ñi fi toog yàgg naa di ko wax c'est pas la politique yi du lii bi politique moo ñu boole bokk moo ñu boole mais li ma leen bëgg a xamal mooy coow yi na de mais amu leen amu bu ragal de man de man dama dem ba jeex. walaay kenn joxu ma suñu kenn joxu ma tàngal bu may àndal tey avec le président Macky Sall par conviction et fidélité à loyauté. loolu moo tax may àndal le président Macky Sall muy naa ne keroog di président ñoo Thiès wala ngeen ko seen bopp de. président bu ñu rombee Diakhao fu mu romb si bureau siège. waaw lu mu tax na Habib Niang mooy def fii loolu président suñu dëkk bi ñu toog. waaw man ko président Diakhao am plus de cent ans bu ne ah ñu toog xool. ñu ko regarde ces braves femmes qui sont là monsieur le président. président loolu xale yi jàppale jigéen ñi. dëgg la mu ngi def lu mu mën man dëgg laay wax moom xam na ko si man. man aussi loyauté et fidélité moo tax may accompagner son excellence le président Macky Sall leneen. sayal naa nag sama mouvement bi rappel mais taxul maa ngi yore sama base politique. waaw maa ngi yore sama base politique. ba fi may toog nii jot naa message léegi-léegi waa Touba dem nañu fi Touba dem nañu fi Mbacké def meeting ni ngi may envoyé message di ko suivre en direct di remercier beaucoup la presse. xam nga lu gën a bon mooy nga nekk kilifa nekk ministre nekk un DG di yàq ñun ñëpp ñu jàpp président rappel bi lañu def benn yoon défense. xam nga lu gën a bon mooy ñu yàq Sénégal li ñu tàmbali mooy wóob la dund woon di jaxase jaxase jëm jëm jëlam ci da ngay defar ñun suñu biir mouvement bi am ngeen baal maa xamee am na sëy yu bëri yu fi tasoon defar am na kër yu bëri fi tasoon defar nañu kër yi parce que loolu yàlla santaane ay mbokk nañu pour wax leen aussi maa ngi sant les délégations yi fi teew ñëpp jógee sa bàyyi sa soxla ñëpp xam nañu yokkul. bi ma waxee benn waaye ma ne dee bu dee foo nekk yaa ngi sa yaa ngi prépassé passation de service parce que comme suba laa ne passation ma ne ko ngi Thiès parce que am habitude di il waxtaan sama ndaw sama jigéen ñi mu ne ko monsieur président man dañu si kan moo mën sa kan moo ko li ñuy kan moo say def. kan moo ko ñeme def. ñemewu ko jour ouvrable ñëpp liggéey ngi seen kër jigéen ñi bàyyi seen kër yëpp. ñëw mos Habib Niang yombul de dañoo ko dëkk. bàyyi seen liggéey bàyyi seen voiture yi bàyyi seen accélérateur yi. waaw bàyyi seen classe yi et puis léegi ñëpp boo xoolee sax étudiants yu bëri ñëwuñu parce que dañu nekk en fête. dëgg la mais xoolal jigéen ñi toog ñëpp ñu ngi bàyyi seen kër bàyyi seen ndongo yi ñëw la pour Habib Niang parce que Habib Niang moo leen ko jaral. yéen nag li ma leen ko yaakaar naa yàgg nañu ànd li nga xam ne góor ngeen seetal. dëgg la man politique politique dundaluma de man maa ngi dundal politique kenn joxuma jël li ma leen di na ngeen téye fi ngeen téye ngeen sama moo door sama moo door nag waxoon naa ko fii damay réitérer aussi sama engagement envers son excellence le président Macky Sall. tàcc leen loolu waay. xam nga lu tax yàgg naa ko wax fii lu ñu Sénégal di ko jox ngeen baal heure la. di ko tayle. ne day toog nee na dama lay ngeen te dañu lay seen doom yi seen yaay wasit waaw dañ ko nangu dañu waxante Sénégal dëkku diine la dëkku jàmm la moom wootee manifestation man Habib Niang maa ngi dëkk jiite sama njaboot dama bàyyi ngeen jiitu yéen waaw yaakaar naa xam ngeen si dara donc li ñu ñaan mooy li jël si dëkk di ko tayral dañ koy jox ku fidèle dal ku am diine ku am yërmande ku am expérience parce que d'ici deux mois trois mois la presse doon ñu jékkati ñun on va accent si la proximité groupement bu fi nekk bu soobee yàlla amit ñaar dina ñëw seet la. projet boobu nekk nii programme boobu laa nekk nii à partir de semaine prochaine. pour naa le bureau des femmes le bureau des jeunes préparé un programme xam ne ku si nekk naa la seet fi nga nekk waxtaan yow li may wax rek mooy dañu fexe surtout pour les primo-votants c'est important di dem retirer les cartes nga xam ne maanaam jot ñu na inscrire délai bi gàtt na mais délai bi baax na ne ma dem leen ngeen di inscrire am ay jafe-jafe am na ci benn commission bu ndaw bu ñu créé demee si ngeen seet si ñu di leen wax noonu di def di accompagner leen donc ñun aussi booy dem guerre booy dem combat da nga yor yor ay ay gànnaar da nga yor bi mooy lan mooy carte électeur bi donc euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di leen baal ma ax ngeen baal ma ax yàlla na yàlla boole baal. amiin di leen a bëgg et puis def ñi fi nekk ñëpp. amee jàngoro yal na yàlla war a seen jàngoro fi nekk ñëpp amee soxla yal na yàlla faj soxla yi Habib Niang démb mooy seen Habib Niang tey toujours Habib Niang toujours proche de la population toujours Habib Niang toujours Habib Niang Thank you. moom